di ñëwaat rek comme niñ koy defee euh, jamono bu nekk ni ñuy ànd ak euh, madame Ndiaye ci ci euh, li nga xam ne moom mooy ay jàngat ak xalaatam yi nga xam ne mi ngi ñu koy jox jamono bu nekk ci IATV moom la ñuy dugalati su ko defee mu ñëw ci intervention yi nga xam ne daanaka min nañ ko ci moom jamono bu nekk asalaamaaleykum madame. maaleykum salaam. waa sëñ Fallou. waaw maa ngi lay nuyu di nuyu jaara sama doom mm. di nuyu Pa moom joxal ma ko nuyum spécial moom mami ak Nabu ak ak oustaz mm. vraiment dama leen di bëgg bu baax a baax a seen benn émission du ma raw dama koy ñaanal wér gudd fan yàlla aar ko sàmm ko yàlla leen yàlla leen yàlla aar sàmm leen amiin yaa rabbal aalamiin yal na leen yàlla aar sàmm leen ci barke yonent yàlla Muhammad amiin waaw tey nag yàlla musal leen muccal leen laaj lan mooy foofu lan mooy kii laa jëm si euh, li nga xam ne moom mooy thème bi la DG Cheikh baaxum dañu wax ne dañu fekk ci këram un milliard Eh, jamono yële gis nañ ñu waxoon ci Farba Ngom ak liñ ko eh, li ñu ko sàccoon mu mel ni régime bi daal eh, daanaka scandale moom lu fi luñ luñ miin ci ñoom la beneen bi si topp aussi mooy li nga xam ne moom mooy arrestation cible yi nga xam ne gis nañ ko jëmee ko ci journaliste yi ak tamit ki nga xam ne mooy Sidi Ahmed Mbaye bi nga xam ne bokk na ci ñi doon jàppale Adji Sarr wala ku ñu tuddoon ko ci li nga xam ne mooy dossier Adji Sarr bi ñu wax ne ñi ngi ko doon déglu foofu ci section de recherche bu Thiès. ci ay dix yoo xam ne ñu ngi ko ko doon euh, tuumaal wax ne moom moo ko moom daf ko triande euh, loolu daal mooy li nga xam ne moom mooy nekk euh, temu tay bi ñu ciy déglu sa xalaat waaw bala may ñëw ci thème bi dégg naa kii yi nga ma jox trois ci version may ñëw ci thème may njëkk a wax chaque jour damay dégg ñu naan sonko waxagul sonko lu tax du wax sonko lu tax du wax gis nga sonko jullitu yàlla buy jaamu yàlla la ci weeru bi benn ñaareel bi dafa dafa tawat il faut tam mu faj yaramam hmm. ñetteel bi réew mi moo ko saf réew mee ko ñor hmm. gis na nit ñuy néewale doole gis na sunu alal chaque jour mi ngi dem ci loxo tubaab ak ñi nga xamante ne ñoo yor nguur gi Sonko bay bay bakke teg bakkanam ci loolu pour dimbali nu pour ñun ñi nekk ci àll bi sax ñun ñibbis sunu dëkk xale yi dootuñ jaarati ci géej hmm. Sonko dafa joxe bakkanam ci loolu Sonko ñi ñi naan nag génn wax moom waxul ba tey Sonko li mu fi waxoon mënul waxaat lu mel noonu hmm. lu lu raw loolu wax na li muy wax ba pare ba mu ndax pare ngeen rek hmm. man pare naa moom gis na li mu daj Sonko li mu daj ku ko yërëmul hmm. gis nga gis nga dañ naan euh, euh, bàyyi ma boo ko yërëmul boo boo ko yërëmul baayo ba foog ko yàlla jox baayo boo ko yërëmul rek ba ko li nga xam ne moom la ko yàlla cërale gis nga Sonko dafa teg bakkanam ci lii kon nan ka may jàmm bàyyi ko mu faju ba wér du génn ci média yi di wax ñu naan Sonko dégg ngeen li mu wax dégg ngeen li mu wax gis nga dafa am gis nga pat noppi rek silence wax la moom fu mu nekk nii waxuma peuple mais ñoom ñoom waa nguur gi ci boppam Sonko da leen a jaaxal hmm. pattam gi mu ne pat daf leen a jaaxal gis yàlla day jaamu yàlla ñoom dañuy toog di déglu ay waxam ci ay waxam la ñuy déglu di jóg mën ci xam fi ni teg seen tànk pour mën ko faagaagal bu neexee yàlla loolu dootuñu ko amati. nan bàyyi doomu jàmbur tout tranquillement yaa ngi naan wér gu yaram mais tamit dafa mel ni toogaay bi mu ngi lijjanti ay ay ay mbiram ci suuf ndax gis nañ ne. waaw li ku nekk noonu la loo bëgg toujours lu muy def rek sàng lu muy def rek sàng ku nu xam foo jëm xoola doo ko mala ku nu xam foo jëm doo yegg. Hmm. àdduna bi kun xam foo jëm doo yegg mi ngi lijjanti mbiramoo lijjantiwul mbiram yëpp moom li muy def xam naka ka bu baax hmm. ñun ñi nga xam ne ñun ñoo ko gëm topp ko tamit fi mu ñu yam loo yam lim ñu def loo la nuy def te lim bëgg ci la nuy ne nga xamul kenn koo xamante ne ànd na ak Ousmane Sonko rek nga xamadi wala ngay def lu bon wala ngay saag te amul amul amul ñoom ñoo ci daan ñoo fi daan fay saagakat yi hmm. Hmm. ñoom te te échec ci échec lan dëkk parce que dañ fi fay dañ fi ay saagakat teg saaga yi sottiwut lu ñu njëkk a def di ko tuumaal ni sunkot bu faloo du dem màggal dootul am loolu luñ ko njëkk a sosal hmm. ba mujj gi ñu naan màggal dootul am gàmmu dootul am ñu naan i kooku de kon baaxul ñëpp naan kooku de baaxul yàlla def yàlla di dem mu gëm li mu gëm rek di def te xam ne ci yoonu dëkk la ne muy dem di dem mu jaaxal leen nag mujj gi ñu ne kii de salafis la mooy dem ci ci ci ci ci ci këru dëgg rek boo nekkee këru dëgg da ngay dem rek mhm. lim li di jaxare badar ba liñ doon wax naan fan la dëgg nekk ñu naan nan leen dem di ngeen xam fu dëgg nekk ban demee ba yi ba Seydina Muhammad taxaw ci digg Kaaba ga dañ ni fii la dëgg nekk maabo dafa taxaw daal ni dëgg ngi lii fii la dëgg nekk mhm. te Sonko ci loolu la jëm fu mu nekk nii fi dëgg nekk ñun ñëpp nañ ko xame ci gis nañ xam nga lan moo ma naqari ñi nga xamante ne dañoo ànd ak ànd ak nguur gi fi nekk ci ay caaxaan dañ leen di nax di leen naxee junne ki ñaari junni di leen man looloo ma naqari ñuy joxe seen carte d'identité yi ci zéro loolu moo ma metti ndax seen doom yaa ngi souffrir lool bu leen ko joxe day seey après léegi bu ñu jógee li ci des ñu ëllëg ëllëg suñu ëllëg ñu nekk bu mu njaam taxaw ba tey nit ñi nan delluwaat seen xel ci lii ñun Sonko mi bëggal Hmm. Sonko bu doon jëmm boppam rek la su ko neexoon mu dem toog nee ndax jiñ nañ ko fi salafis jiñ ko fi naan ibaadu jiñ ko fi lu façon bu nekk teg nañ ko ci deram bi ibaadu jullit la jullit la kuy muur sa yaram jullit nga loolu doo nga la neex waaye loolu ñu koy waxal yëpp ta daf ci am ñu jógee te xool yooyu yëpp ñi ñaa ngi commencé xam dëgg bi mujj ñu daal lan kan naroon jiñ sax moo ëpp loolu ëpp naa wax ci téléphone. li naroon jiñ Sonko yëpp dafa bari. Hmm. ñu daal di yëkkati yëkkati ka jiñ ka jiñ ka viol moom viol bi sax seet na nan sant yàlla ndax loolu ñu ko jiñ ñëpp xam na ni du dëkk waaye yàlla buy setal sa der rek def leen di gëlëmal ndax fu nekk lan doon ñoom dañ doon làmb di dem rek dañ doon làmb lu nekk pour teg ci deram loolu yëpp nag pour pour tuur askan wi lëndëm lëndëmal seen xel yi bu ko defee ñu naan i waa ji kay nan ka moytu nan ka moytu nan ka moytu man ku ma waxanteel nga ni ma ii kii nangam ak nangam ci téléphone man sama téléphone laa laa amee man samay nit ku ma ci waxal mu daan ni ma ii kii de nan ka ma neenoon nangam ak nangam ma génne la réalité bi yëpp tegal la hmm. bés bu may wax son Sonko mu taxaw rek laay doon barki Seydina Muhammad parce que li may wax mooy li muy wax rek laay wax bu ko defee nga gis ñu commencé naan laay laay sama yaay ci boppam sax dafa ni woon carrément loo wax mu ne kii waaye dafa dem ba ni ñun kay yàlla nu yàlla dimbali ndekete yoo doon doon dóor suñu loxo ci ak ñun kay xamuñu woon li ñuy def ndeke billahi barka alquran te bu musaana wax ak moom mun la dimbali ma nitu jàmm la nu bëgg nitu jàmm la nu bëgg doon nan ko foxal Ablaye Wade naan nitu ay la Ablaye waat ba mu toogee ñëpp xam na nitu nitu ay loolu la ñuy waxal Sonko naan nitu nitu ay la Sonko nitu jàmm la du defante kat nan bàyyi doomu jàmm tout tranquillement hmm. waaw nan dem bi li may njëkk wax waaw li may njëkk wax waaw ci laa waaye ci laa jëm lii la Sonko di daw lu ba lii la di daw li lii rek lay bañ jar yi alal yii ñu jël alal nguur ki ñu jël di denc seen biir kër yi lii la Sonko di bañ lii lu mel nii kese ku ci nekk am sa salaire bu boobaa boo yemee doo am ay milliards yooyu denc ci biir booy jël sa salaire bañ a jox sa njaboot lekk wala naan di ko dajale boog sa sa sa biiru dund bu boobaa di am milliard fan ka pax ma nga gas dugal ko fa. Hmm. waaye alalu askan wi nga jël ku nekk jël paacoo ñoom ñëpp seen kër yi fees dell ak xaalis très bien na xale yu songi seen biir kër yi génne ci xaalis hmm. lu nu jël nan ka lekk day rees ak jàmm alalu askan wi la. Hmm. ndax lii ñuy def teguñu ko fenn. jël alalu askan wii di denc seen biir kër di def ay kus ñoom ñëpp ku ci nekk seen biir ay banque la ñoom ñëpp ku ci nekk seen biir kër ay banque la ay banque fa ne dañu ubbi banque seen biir kër ay kaaw lan fa def ci xaalis ñoom ñëpp xaalis baa seen biir kër yi te Sonko lii rek lay bañ Sonko dafa bëgg ku nekk na yem ci salaire am comme moom bu muy liggéey foo mu nekkoon di liggéey salaire ba ma amoon kuy ñëw di ko ger mun leen téyel sa xaalis lii ma lay defal lu ma war la sama liggéey la bindal la sa këyit ne la dama sa yor lu may joxe nga ni ko dërëm doo ko joxe sa man dama weer wu dee sama salaire laa yaakaar jëlal sa xaalis nga yóbbu sa këyit bi nga doon wut mi ngi nii yombalal la nga dem sa yoon impôt et demet toog na fa ba jóge fu mos fa lekk fukki dërëmu doomu aadama juróomi dërëmu nit lekk ko fa mm-hmm. nan bàyyi doomu jàmbu ji tout tranquillement ci Sénégal ci boppam ñoo ko bëgg yàlla ci boppam moo nu bëgg a sauver na nit ñi delloo si seen xel yii yàllaa ñu bëgg a sauver. yi ci ci côté boobu nga xam ne mooy scandale yu bari yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku jamono maa ngi wax léegi ne Farba Ngom déggoon nañ euh, xaalis bi ñu doon tudd ci këram tamit yeneen scandale yi nga xam ne doonte tudd ñu ko ci kër ministre yi waaye. jamono bu ne ñu ngi koy wax ci ministère yeeg DG li nekk far Farba Ngom kii ñoom ñoo feeñ rek mais des na ñeneen te li des këram moo ëpp lii. li mu génnee am na lu bëri am na lu bëri génne na ko am na lu bëri génne ko këram sax ba denc ka feneen. Hmm. ak carte d'identité itam lu bëri génne na ko këram ba denc ka feneen ñoom ñëpp a tiit pour bu même bu Macky Sall mi poussé pousse demoon keneen ku fiy dem ju jël carte d'identité ak kii jox la ko carte ak numéro carte d'identité jàmm hmm. jox jox jàppale kooku jox ko di xeex Sonko waaye Sonko bu yeboon ñu xam ni kii yàlla moo ko fi teg ku yàlla tànn nuróowu la ku doomu aadama di tànn tànneefu yàlla la nan bàyyi doomu jàmbur tout tranquillement hmm. li nga xam te ñii ñu jàpp def yenn détenu politique jël leen den denc leen bëgg ñu dellu ci buumu njaam gi diñu takkal ay ay ay lam diñu takkal ay buumu njaam xam nga ñooñ nekkoon gore ay lam bu leen mosaan jàpp ay lam la leen daan takkal seena leen di leen yóbbu Macky lool la fi delloo si ñi hmm. nga xam ne lool la fi Macky euh, Sall delloo les journalistes gis nañ keroog Maxu men Mandela bi nga xam ne moom la ñu mujjee woo wax nañ ne delluwaat na këram sax waaye arrestation ciblée yooyu yi ba lan moo si sa xalaat ko ba tey déedéet mu ngi la dinañ ko bàyyi de dinañ leen bàyyi ñoom ñëpp wallahi wala sim dinañ leen di bàyyi ay xal yu gis nga ñunu téye téye nañ leen waaye ay xal yu lakke seen loxo la barke Seydina Mohamed ñi ñu téye nii téye nañ leen mais ay xal yu lakke la seen loxo ndax lii ñuy def dañu ñëg ñëg moo tax ñuy gën di pousse jàpp ñi hmm. ñëg rek moo leen jàpp waaye lii ñuy def ak ñin koy def loo bëggatum ci dara dara dara dara dara dara fu mu ne defe na ne bu nu ñi ñu bu nu téyee ñii ñiy voté dinañ wàññeeku juum nan ay jinne bu leen yàlla doon sopp ñuy soppeeku sax di def ci kees yi eh, kii yi sax ko def hmm. maa la wax li carte yi ko def nan téyee ñëpp yàlla buy soppi ay jinne ci kaw suuf pour ñuy votel Ousmane Sonko sax yàlla naka def barke alxuraan moo ngi seen mbirum Siré Ahmed Mbaye ak dix millions yi euh, bàyyi ma loolu loolu moom xoola loolu ñoom ñoom la rek seen biir nan lekkante loolu ñoom rek la seen biir hmm. gisagun dara sax Siré Ahmed Mbaye a feeñ la mais li nu def yëpp ñoom li nu def yëpp mi ngi fiy teg nit ñi xam yëpp teg seen tànk ñoom ñooy borom millions yeeg borom milliards yi ñoom seen biir ñuy lekkante dëkkal nan fi gisoon nan fi kii min fi dëkkaloon kër mu toog ci rajo yi naan man ku ma fi nekkal rek laa nekkal ku ma ku lu ma jox rek nii la kii def ba am kër ba am ay kër am am ay suuf yu bari hmm. ana mu foo ko déggati ana jigéen ana ana ñu futa ñoom futa njaay fu futa futa mi doon mi doon saaga ñoom it foo leen déggati ana Kaliphone moomin mi doon saaga ñoom ñi doon saaga ji ana ñu hmm. te tànn nañ fi kat tànn fi ku toog ci média yi wax di xaste di wax lu ñaaw Sonko di yàq deram di hmm. tudd waajuram nga xamante ni sequt ak kenn dara Sonko mus teen mus la dégg ci làmmiñam mu wax wax bu débordé wala wax bu bon Sonko àndul ak bandi àndul ak sàcc àndul ak kuy wax bu yiw rek lay àndal jullite sell. ana kiñ fi tànnoon ki nga xamante ni moom moom moo doon wax naan ni nii la xawma kii def ba am ay am ay suuf mu nekkoon mu nekkoon ci ca télé ba jour boobu la ko ca télé ba hmm. boobu la ko ca télé boobu ca rajo boobu gis nga xam nga la mooma lu ma lu ma nag ban gàcce laa mën nga fekke man te yàlla ci yàlla musal bis bu yàlla fali Sonko yàlla fal ka te yàlla ko sunu borom bi def mu toog ba yoroon ñu suñu réew mi média yi nga xamante ne dañoo ànd ak Sonko bu boobaa nan la ñuy def ak seen gàcce nan la ñuy def loolu moom moo tax ñuy rey seen bopp lii rek a tax ñuy rey seen bopp nangu ñu wax dëkk duñu wax dëkk bu ñu jógee ñu ngi ci ay xawaare bu bu ñuy wax safaan Sonko ñooy invité ñuy wax safaan ci Sonko booy wax pour defar pour luy defar deru Sonko sax ñu ne pour lan nga koy wax booy wax dëkk sax du question defar deru Sonko mais wax dëgg rek te yàlla tax boo koy wax sax da gis ni ñu lay tañ xale média yi nga xamante ne dañ leen a tànn gis nga bugaan bi nu tëj bugaan dañ ko doon tiiñ kii tëj ay kontam defuñu ko pour tëj ka niire de wala dañ ko bëgg a tëj wala daf leen ameel dara du dëkk hmm. ñu tëj teleem bii nga defeen dañ ko tëj noonu du benn dëkk li ñuy wax dara du ci dëkk dañ koy tëj pour li nu bëgg a def buñ ko defee benn télé bañ ka teg nii ñu fiy tëj ñëpp noonu la wal fajri mi ñuy xupp nii bëgg dem ci moom yëpp loolu kese la ñoom fu mu nekk nii dañuy naal te lu ñuy naal xamuñu fan lan koy weer loolu kese moom moo leen jàpp seen mm-hmm. póot ni ñuy naal fu mu koy weer ak fu mu koy weeree lañu xamut fu mu nekk ci guddi gu bërsëtagul lan nekk lu bon leen ni def yëpp na dellu seen kaw nan bàyyi doomu jàmbur tout tranquillement te bàyyi doomu jàmbur prisonnier yu ñu téye ak ak journaliste yu ñu téye nan leen bàyyi dëgg kenn du ko wax kuy naa fekk loolu bëgg ak kuy fen ak ku leen di kii ñu naan la yow la yaa fi ne nga bandi yi ñu jàpp fal leen jox leen ay millions ba dolli leen seen bakkan ci xolitu gerte parce que ñu ngi leen di dugal ci loo xamante ne xamuñu ko sax billahi ñu ngi leen dugal ci lu xamul di leen jox alal ñu leen dem leen rayal te ci ay bandi lan mujje na wut nañ saagakat tuumaal nañu doomu jàmbur luñ def rek yàlla weer leen léegi ci bandi yi billaay ñi billaay ñooy président Bandi billaay ñooy président Bandi ñooy gouvernement Bandi yàlla leen fi yàlla jële ci barke yonante suñ doom yi jaar ci géej gi doy na nan ubbi ay ay ay usine dugal ci xale yi sunu suuf neex naa bay ñu bay sunu dëkk naat na ñu bay bu bay bayee dëkk bi dina naat bu bu bu ki paree te ñax yu vert yi génn dëkk bi naat ñu xam lu nu lekk suñu suuf neex na bay nan def li ñuy def jël xale yi fay leen moo gën ñuy ci fay ay ay bandi ak raykatu nit xaalis bi ñuy ta wasaare nan ko jox xale yi xale yi bëgg na liggéey bañu ñu liggéey yàlla na fi yàlla jële gouvernement bandi bi foofu la ñuy mujj bu xamoon ne bandi la ñuy fal du xamal du fallu de lay mooy baadoo la mm. moo ko état waa mm. koy jërëjëf sant nañ ko gërëm ko di leen sant aussi di leen gërëm joxe dig daje beneen yoon incha allah.